Hmm. Euh, 2014 hmm. c'était la grande révélation la grande star des des locales hmm. euh, il est le seul à avoir gagné à Dakar euh, Khalifa Sall a infligé une bérésina à l'Alliance pour la République et à Benno alors euh, mu nekkoon directeur du COUD ñu yóbbu ko ministère des transports euh, aériens et du tourisme mu jóge foofu ñu yóbbu ko ministère collectivité locale mu jóge foofu ñu jox ko ministère de la santé euh, mu nekk maire Yoff perdre Yoff au local euh, de 2022 et puis ñu limogé ko euh, à la suite d'incidents récurrents d'incidents criminels récurrents mu nekkoon en tout cas jusqu'à une date récente le seul membre de l'Alliance pour la République bi nga xam ne il pouvait se gargariser d'une base électorale à Dakar moom tey est-ce que mën na dékku Euh, euh, Benno Bokk Yaakaar et faire gagner Benno Bokk Yaakaar quels sont ses atouts non enfin ses atouts bon comme ni nga ko waxee Diouf Sarr c'est un responsable politique qui est là qui a son envergure bon qui a des atouts qui a des handicaps da nga wax ni par exemple dañ ko limogé woon pour des faits donc il y a un bilan négatif il a un mais il a bien travaillé ci Covid bi a bien Covid bi ah, euh, Covid bi les gens avaient salué le travail qu'il avait fait. Ah avec son équipe médicale. Ah eh bien après y a eu euh, le passif aussi. Mhm. Euh, le rapport de la Cour des comptes. ak ak kon liñ ci tey fi mu toll nii bu ñu waxee Covid Abdoulaye Diouf Sall lan ngay retenir. moi je les deux. le travail qu'il a qu'il fait ak le rapport de la Cour des comptes. C'est les deux. Maintenant, jusqu'où le, le, handicap pèse, jusqu'où les atouts pèsent, c'est la valeur intrinsèque de la personne mu koy génne. Hmm? Euh, exercice bi ngay def nii dafay compliqué. parce que. li nga bëgg moo di ku nekk nga ni ma. du compliqué non da ngay da ngay da ngay da ngay dimbali ni